salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi ñoo ko seetaanandoo ana ma doon xas ana ñi ma doon xas naan ma Adamo dafa bon Adamo dafa soxor Adamo dafa iñaan na génn ci couple jàmmoor bi damaa xam boos waxoon naa leen kii du yaayam ngeen may saaga da ko doon utiliser ndaw si xam nga lan moo tax mu génn wax parce que da koo utiliser. utiliser ko utiliser ko ba am ci moom xaalis daat koy jël nag takk ci soxna léegi di na ay séeréer moom ak ummi booleetu ci sax ndaw si effacé na ko ci fiiwum yalwaan la fi nekke ak utiliser yaayu jàmmoor yi ak ak meer yeeg ñu jëkk ñekk ñu waga ñekk ñuy ndoxum si ñeeg ñi nga xam ne seen cëriñ matul ñoonu la boos di wër boos loolu lay dundee xam nga keroog ba ni ket naan ay euh, waaw euh, ummi dafa soxla prothèse nan ko dimbali mobilisation nous cotisons pour jëndal ko prothèse combat Modou Lo bi ñoŋ la def yéeg kii fenêtre bi ma ne golo yow ko sa tànk dagg nan nga mën a tëbee ku mën a tëb fenêtre looy dayee tànk parenthèse tànk loo koy dawee gisoo ko ni ma ngollee ko mel na lëpp yéeg ci fenêtre bi ne cuy gis ngeen vidéo yi boos ci boppam moo nekk doomu xaraam boos ci boppam moo bëgg victimiser wu ay jooy ak yalwaan góor nga takkal sa xuur yi yor nga ay kooy nga frotté ko damp koo xam ne góor yàlla nga dem yi daal daani doole nga wër nit ñi di leen utiliser rek xam nga ne sa yaay ji nga jël yab ko ci valise yi doxantoog moom ci plateau yi fu ne nga dem fa jooy sama yaay daa cëkk tànk bi wutul sama yaay dafa gàtt yëpp ay duul la yaa ngi nii gën yaa yaay tëj sa commentaire yi maire bi gën daam wax waxoon naa leen ko boos mi ni mu ñàkkee jom ñàkk fu la bëgg fi duul la ku dàq fen ku dàq duul boos amul ci àdduna bi pauvre bu kat ndayam tuddee sa yow sa bopp boos nan nga mën a tuddee sa bopp boos ta yoroo dëjjaw ndey man looloo ma metti man xaaral ma sensé ndey sama tur bi wasalaam